asalaamaaleykum sëriñ bi waa man la amee mbuub dëkk Touba Daaru Xudus ñu ngi fii ci Daaru Tamsir ci sëñ Akim bu sëñ Moustapha moom sëñ Abdou Assis moom sëriñ Baara waaw Baara Aminata loo mbokk ndeyu Moustapha ñu nekk fii nag di waajal màggal gi commencé ber ndey soxna muslim nga xam ne moo bokk ak sëñ Akim ndey ak baay indi ma fi moom nag dafa mel ni ci gaa yu baax yi rek lay wër ba ngoon jot mu dem tëdd ndax ban jàppee màggal gi ba ba tey lu koy réussiral rek lay wër ndax ñoom amuñu lu dul bis bi bis bi rek moo leen ñor kon ñu ngi ñaan yàlla nañ ci dugg bisimilahi rahmaani rahim eggale ko alhamdulilahi rabil alamina ci barke sëriñ Baara barke sëñ Modou Moustapha waa suba moom xéwal boo soxla ak bu mën di doon yaakaar naa boo ñëwee ci waañ bi di ko fekk fii waañ moom dara du fi manqué li ko dala bi ceebi laa yeeg mooy ceeb payelaa rek laa moom jeexal na wax yàpp ginaar ak poisson lépp lépp loo soxla mi ngi ci biir ceeb bi mbaxal yi tamit mi ngi fi ceebu naar yi masàllaa mi ngi fi laaxu bi saab mi ngi fi fii daal lépp loo xam ne da koy wër soo ñëwee di nga ko fekk incha allah màggal bi ak borom bi nga xam ne moom lañu màggal tey ah borom de moom xam naa moom mu doon nit ku baax loolu xam naa ko ci moom